salaamaaleykum mbooloo bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam man la maam Thierno Diouf trésorier général bu ATL. waa d'abord ñu ngi ñu ngi ñu ngi jaajëfal bu baax waa association bi yëpp di wax ndaje tey bi rek dafa fekk ni réunion association bi la samedi bu jot jigéen ñi dajaloo fi tey nag mu am benn séminaire boo xam ni moom la ñuy defaale ci réunion jigéen ñi loolu moo waraloon ndajaloo bi tey jii ñu ànd ko xale jigéen ñi ànd ko suñu naataango. Serigne Khadim Ndiaye di ko félicité bu baax moo xam ne moom mooy organisation moo yor organisation Seni en Herve bi ñuy def ci association bi chaque samedi bu jot ànd koo xale jigéen ñi ak association bi yëpp loolu moo waraloon ñun ñëpp ñu bàyyi suñu yite yëpp ñëw teew fi ngir association bi. waaw comme ñun ay ndaw yoo xam ne dañoo dëkk ci quartier bi dañuy jàpp ne association bi day association bu mag boo xam ni lépp loo xam ni ay ay ndaw yi war nañ koo def ci ci ci quartier dañ dañ koy def loolu moo waraloon biñ ko xalaatee ne comme dañuy woo suñuy rakk ak su ak ak suñuy jarbaat ci association bi dina leen defaral benn organisation boo xam ni Seni en Herve lañ koy tuddee ndax yokk seen xam-xam bu baax a baax yokk tamit bu baax ñu ñu gën a xam dëkk bi gën a gën xam bu baax baax fi ñuy teg seen tànk gën a xam bu baax baax loo xam ni ndaw war na koo xam rek ñu war leen koo xamal ñu fexe ba xamal leen ko loolu moo waraloon lii seen énervé bi. biñ ko commencé ba léegi nag muy nekk ñaari samedi rek la la la la la amagut. d'abord ñu ngi def suñuy suñ suñuy gëstu aussi ñu ngi waxtaan ay nit yoo xam ne jàpp nañ ni mën nañ si jàppale mais ba jamono yi ñu toll nii kenn jàppale guñ si. waaw comme li ñu li li gën soxla rek mooy que ay gone ay ndaw lañ te li ñu def nii euh, mën nañ ñi réew mi yëpp la la la la soxal comme ay ndaw lañ yuy bàyyi suñu yitte bàyyi lépp ngir jàppale ndawi yi dëkk bi te mën nañ ñi ndaw mooy moo yor avenir réew ëllëg kon dañuy dañ dañuy xam ne li ñu si soxla bari na loolu bëgg nañ ku ñu teg loxo bu baax a baax nga xam ne moom la liggéey rawatina ci association bi jëm ci ndax association bi moo ëmb lépp ndax association bi biñ ko biñ ko créé ak yàgg na te mosuñu gis ñoo xam ne ñu ngi ñëw di ñu taxaw te ñu ngi ñu ngi dem ak suñu moyen bopp bëgg nañ kuñ si jàppale bëgg nañ tamit ku taxaw si seen bi ba boo xam a am ay kaye am lu ñuy jàngee mën a am lépp loo xam ne nit war na ko am rek pour pour pour continuer continuer say idit mën a mën a jàng bu baax a baax soxla nañ ko soxla nañ tamit ku ñu teg loxo baax ci association bi ñu commencé di waxtaan si yooyu bi ñu ko commencé tamit invité mm, ndax tey jii yaakaar naa am na ay association yoo xam ne ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si gox bi invité leen pour ñu ñëw toog fekke si fekke si lii ñuy def mu seen énerve bi te aussi tëjaluñ suñu bunt benn association bu ñu ko waree tamit da lu ñu doo ko commencé la bëgg nañ mu law si quartier bi yëpp waxuñu la association yi de mais bëgg nañ bépp ndaw boo xam ne mu ngi si quartier bi rek ñu def ko ak yow ba def si yow formation yoo xam ni association bi moo ko moo moo ko def si yow loolu moom la ñu bëgg a def te loolu lañ def ko ndax ñu opté pour liggéeyal xayra te xayra rek moom moo ñu ñor téyeluñ suñ bund benn association te association yi nga xam ne ñëwoon nañ fi bari nañ lool ñi nga xam ne ñu ngi nekk si ci ci ci gox bi woon nañ fi président pour waxtaan ak ñoom buñ ñu paree pour def ko dinañ leen si gunge ànd ko ak ñoom ba ni ñu ko bëggee ñoom ñu defe leen ko noonu li li ñu wax yenn association yi rek comme mooy li li ñu yàgg daa wax rek ndax euh, ndaw bu nekkee ci ci ab gox wala mu nekk si ab quartier na na na fexe ba li nga xam ne moom la opté pour def ko muy liggéeyal ab ab ab ab ko defaat ci koñam ñëpp di ko gis association yëpp ñu ngi ni a nekk association ba pare dañoo bëgg a liggéeyal gox bi di fexe ba li nga xam ne dañ koy jëlee ci àll ba wala muy waat ñu koy delawaat ci askan wi di koy delawaat ci ndaw ñi di ko delawaat ci seen yaay di ko delluwaat si ñëpp ndax loolu moo tax nit ñi jox leen baat te lépp loo xam ne war nañ koo kaasal seenu gox ñu dem di ko kaas te di ko indiwaat si si gox bi loolu lañ leen wax tamit di leen wax tamit ñoom comme association bi atel yaakaar naa yàgg na léegi moom euh, bi ñu ko formé léegi mat na huit ans ndax 2014 ak léegi yaakaar naa huit ans la ci 2022 bii nii di leen wax ñoom ñëpp bu tëjalu leen seen benn benn buntu boo xam ne association bi tëj ko amul lépp loo xam ne bëgg nañ ko si association wala ñun ñoo leen fa ñun ñun ñoo leen fa su sut ay loxo bu ñëwee dina leen jàppale dox ko ban jot si ñoom ñëpp ndax ñun ñëpp xayra rek la ñuy liggéeyal waaw association bi mu ngi nekk fii Touba Xayra 2 wetu kër Serigne Bassirou Mbacké siège social bitigu Moulay Diop foofu la nekk association bi mu ngi tugg association takku liggéeyal xayra 2 ATL ASD action solidarité et développement képp koo xam ne bëgg na jot association bi mën na woote ci numéro yi nga xam ni moom la ñu def si tiset yi numéro bi si njëkk muy 77 116 06 53 numéro bi si topp mu ngi nekk 77 610 05 95 numéro bi si topp 483 51 88 loolu mooy numéro yi nga xam ni mooy numéro association bi képp koo xam ni bëgg nga jot association bi boo leen wooyee dinañ la wax fan nga leen di fekk ba lépp loo bëgg a liggéey ak ñoom dinañ ko ànd ak yow. waa li ma bëgg a leeral rek ci ci ci association bi mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy waa waa waa Xayra waa Xayra gi yëpp ak waa Touba. moo xam nga dëkk xayra te nekkoo fi nga xam ne association bi nga xam ne bàyyi woon nga ko fi ndaw ñi ko bàyyiloon ñu ngi koy sàmm ba fi ñu toll nii bu ñu sañoon képp koo xam ne yaa ngi dëkk xayra wala dëkk nga Touba di dégg suñu kàddu nga ñëw jàppale association bi ndax association boo xam ne lañ am nañ ay bëgg nañu liggéey ndax lépp lu ñu def seen mooy moyens bopp lañ ko defee kon ñu ngi woo ñu ñu ngi woo politiciens yi nekk si ci dëkk bi yëpp di leen di leen woo yéen ñi nga xam ne yéen yor site site internet yi di leen wax ni bëgg nañ liggéey ak yéen te bëgg nañ tamit ku gën a jàppale association bi ñu ngi leen di woo tamit ci liggéey bi tëjaluñ leen suñ suñ suñu benn buntu di woo waat bu baax a baax suñu yaay yi nga xam ne ñoom ñooy yaay mbootaay te ñu bokk association bi ñoom it ndax association bi ëmb na lu mat set mbootaay yoo xam ne ci ci ci biir association bi la bokk di leen gën a woo di leen gën a soññ bu baax ñu xam ne association bi fa mu nekkoon dem ak bërki dem muy fa te xayra rek moo ñor te bëgg nañ liggéeyal xayra c'est vraiment merci waaw affaire yi ni nga gisee mooy ñoo ngi koy rafetlu lool suñ grand frère yi ñu fi nekkoon ak ak suñ sœur yi ñu fi nekkoon comme ni nga defee rek lañ si jaar ñëw def ko. xanaa di si am kontaante bu baax rek si bëgg lool nga xam ne lii moom maam daal ay maam dañuy gën a encouragé pour ñu gën a xam ñi nga xam ne jàngul ak nga xam ne ñoom ñu ngi jàng sama classe gi daal. jeune ANR bi nu ñu ko gisee mooy rafetlu nañ ko lool te neex na trop parce que dañuy dañuy dañuy boole waaye du ñu tàqale ndax am na si ñoo xamante ne xaw ma leen ñoom xamuñu mais génie en air bi ba tax nañ ñu nekk à benn comme ñii rek am na ñoo xam ne daal ñu wax ak yooyu noonu mais génie en tax nañ nekk à di fo. day wax na génie en air bi ñun nekkuñ loo xamante si ni dañ koy dañ koy fowee maanaam lu baax la tamit waaw lu baax la.